bu taalibe Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bi màndee ci lumière ci tariqa bi gis nga li koy màndil du doon zikr individuel ndax bu doon zikr individuel mooy màndil taalibe bi kon duñu ko soññ ci mu dem pour assister séance mystique bi yonent bi nekkee invité d'honneur looloo tax ñuy tere ci taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi dog yi muy def ci wàllu wérd te bokkul ak wérdu tariqa bi ñuy tere mu fonk dog yooyu ba fàtte ni prioritéem mooy malaanu wazifa ndax léeg-léeg nga gis koo xam ni chaque jour mi ngi ci zikru turu yàlla yoo xam ni la mu cay daj guddi ak bëccëg ma ca waaye mënoo fexe ba gis ka ci malaanu wasif te liy màndiloo taalibe bi ci leer mooy malaanu wasifa waaye rekk du zikr individuel bi ngay defal sa bopp ndax bu ku nekk toogoon sa yor sa kurus di zikr sayturu yàlla te doo dem ca malaan ba kon bu yàggee malaan ba dootul am ñu fay toggati di dundal science mystique boobu di wasif di ko dundal te nekk groupe looloo tax li ruux di soxlu dëgg ci tariqa bi pour bu màndi faw boroom dimbali ruuxam dem ba bokk jëmm yu sell yi malaan toog ak ñoom ñu defandoo seen séance de wasifa suñu paree tëj def seen ñaan loolu li muy jëriñu ruux nga tëju xalwa ay weeri weer di def sa zikr individuel du la ko jëriñ te ci benn contexte rek la ko waa ahlu haqiqa teg mooy nit mën na tëju xalwa ay weeri weer ci déegam di zikr di def zikr individuel mais dara garanti wu ko ni ko yonent bi dina ñëw ci présence physique wala présence spirituelle am fekk si ko ci jotaay boobu mu am ca néegam dara garanti wu ko ko te ki dem ci jàkka ja ñu lal malaan bi ñu wasifa su yàlla nangoo wasifa boobu bokk na ci garanti yi yonent bi garanti woon Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani mooy dina teew ci malaanu wasifa boobu kon fexe dem rencontrer yonent bi mu leer ni la lii ci garanti Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani lay dellu te garanti Cheikh Tijani Chérif kenn du ko révélier kenn du résilier garanti Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijani naka ko yonent bi garanti woon ca bu yàgg ba léegi noonu la garanti bi di doxe te boo fekki jee malaan bi garanti Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani bi mooy continuer di wéy te mooy teewaayu yonent bi ci malaan bi te mën nga toog di def sa zikru bopp ay weeri weer te amuloo garanti ni yonent bi dina ñëw fekk si la ci sa néeg ci présence physique wala ci présence spirituelle looloo tax ñu ni ruuxu taalibe tiijan bi li koy màndil ci leer mooy jotaayu wazifa